mbokkeen tax na Yaatal Vision dal leen jàmm ci xibaar bokk na ca nag la ca gën a fës moo di wuy jib Ousmane Sonko foofee ca tribunal bu Ndakaaru nekk suba yemoog ñaar fukki fan ak ñett ci weer wi nag ngir digganteem ak kii di Adji layo ba nga xamante ne bi ñaar ci ay at ak lu ca topp nag boobaak léegi ma ca toll tey nag ñu war delluwaat foofee ca tribunal waaye nag avocat yi sonk yi ci njiital Ciré Clédor Ly mi ngi xam ne nag ne benn convocation nag agsegut ci ñoom ngir Ousmane ko war a mën a wuy ji ci seeni kàddu la looleen nag tax na ba ñoom ñi nga xamante ne bii foyte nañ ci wàllu googee di Pastef lenn ca ñoom nag fa mu toll nii tembe ña ngay def nag confrance de presse ca ñoom seen biir da wax ne nag li nga xamante ne bii moo di Macky Sall doy na doy na nee na kat li xamante ne moo di eh, ñaawteef yi ni tekk ak mitital yi nga xam ne ñu ngi koy teg Ousmane Sonko nag dafay jeex ci nii mbaamu jeex nag ci naa tey loolu nee na bañuñ ci dara ca ka yëkk kàddu yu toll noonu nag bokk na ca ki nay wax Cheikh Omar Bamba Diop moom nag ba mu yëkkatee kàddu wax na ne kii nga xamante ne bii nag moo di Macky Sall saa su histoire amee rek réew mi dañuy jàpp ni waa Pastef ñoo tooñ te it kenn musta ñëw ba wax ne Macky Sall moo tooñ Pastef rek la ñu jàpp ne moo tooñ loolee nag dafa war a doy ci réew mi ndaxte kat ki nga xamante ni boo di Macky Sall day def ay jëfam ju sew ci suuf loolee samay kàddu kàddu yi ñaa xamante ne bi féete nañ ca làng politique googee di Pastef ñoom ñoo yëkkati loolee ginnaaw bi nga xamante ne bi nag ña ngay jàll ko taskatu xibaar yee ñeneen nit jël fa ay kàddu wax ca lu lu xeetoog jëm ju mel noonee ca wàll ga am na ci it koo xamante ne ma ngay xamle ne li nga xamante ne bi nag moo di Ousmane Sonko saa suñ ko wooweloo muy dem wala muy ñibbiwaat ca këram ñu koy kar wala ñu koy yóbbu di ko finnaal nee na buñ ko bàyyi woon ci jàmm euh, mu dem ci jàmm ñibbisi ci jàmm kenn topp ci nee na dina dem te benn histoire du am benn xeex du am benn xuloo du am loolee it nee na ñoom waa kër Macky Sall ñi ñoo koy gàntal ngir bëgg histoire ak xeex ban rey ci kenn wala nangam looloo tax dakk saa su dee dem wala muy dellu si ñu di ko kar wala ñuy toj otoom di ko génne loolu kat ñoom ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax baax te it di waajal li nga xamante ne bii moo di wuy ji bi nga xamee ne Ousmane Sonko war na ko wuy ji niki suba dëppoo ñaar fan ak ñett ci.